sax soxna si naa de. ça maa ngi fi. tur bi naka la. Khadija. Khadija yow di nga seetaan série sénégalaise yi. waaw dinaa am ñu ma si seetaan nag parfois. yow léegi ban série nga gis ne jamono ji mi ngi ëpp lu muy yeete wala ban série nga gis ne mi ngi def buzz jamono ji. bon pour moi Pod et Marichou moom a gën a neex parce que bon. li ñuy euh, li ñuy joué instant yi moo nekk benn fléau bu graaw ci Sénégal mooy soit si jëkkër day am day takk beneen jabar nga indil ko problème soit nga taal ko wala genre nga indil ko loo xamante ne daf koy daf koy indil problème ëllëg daal affaire jalousie daal. asalaamaaleykum soxna si tur bi naka man maa ngi tudd Kiné ki ne nuyu nañ la. maa ngi leen di fay. Kiné yaa ngi seetaan série sénégalaise yi. non duma koy seetaan nag. xamoo benn benn série buy daw. xanaa wiiri wiiri daal laay ah. <laughs> lan moo la neex ci wiiri wiiri. waaw wiiri wiiri lu ma si neex parce que dama ko xaw a dund moo tax looloo tax ma koy seetaan ak sama kaa moo tax. tey yow kan moo la kan mooy sa acteur préféré ci wiiri wiiri. man Jojo ak Sumbulu. <laughs> boo amoon lay wax Jojo ak Sumbulu tey lan lay doon. ah man daal lu ma leen di wax daal lu ñuy neex na torop ta ñu ngi yeete. waaw am na solo bu baax sax parce que ñu ngi yee nit ñi. kon daal Kiné gis na ne daal Wiri Wiri ñu ngi yee askan wi daal. bu baax sax kontaan naa si ñoom bu baax. jaajëfal nañ la dinañ leen ko eggee incha allah ok jaajëf. sëñ bi nuyu naa la. waaw soxna si maa fay. tur bi naka la. Mouhamed Nabi Sila. yow da ngay seetaan série sénégalaise yi. waaw dama koy seetaan. tey jii ban série nga gis ne jamono ji mi ngi def buzz. waaw série bi nga xamante ni gis uh, naa ne mi ngi def buzz mooy Pod et Marichou. Pod et Marichou daal tey Pod et Marichou tey ban njàngat nga ci am. waaw jàngat bi ma ci am mooy que ni dina permettre benn instant ñu gën a gëm bopp xam ne ñun suñu cinéma mën na avancer waaw dina tax aussi tamit. Uh, kii comédiens yi wala acteurs yi ak actrices yi mën a dundee seen art daal mën ci am dara xam nga puisque tamit film bi boo xoolee dañ leen di fay kon loolu rek c'est quelque chose moo gën ñuy jël euh, yeneen film yi filmu brésilien yeeg bon yenn série yooyu di ko di ko indi suñu réew di ko seetaan alors que war nañu mën a def consomation locale daal gëm suñu bopp xam ne ñun ñii war lu mën a àgg ñun tubaab bi fi ñuy àgg war nañu leen mën a dépassé wax ma sax àgg fi ñu àgg mais dépassé leen quoi. mais daal gis nga daal li ñuy def nii lu baax la. waa gis naa ne lu baax la moom. i ci biir Pod et Marichou kan moo ci sa sa acteur wala sa actrice préférée. waaw sama actrice nag moom nabu la. lan moo tax nga taamu Nabou. non Nabou puisque Nabou ni muy joué dafa naturel daal xam nga dafay joué joué bu naturel ba pare li muy joué maanaam dafa nekk lu ma neex daal li muy joué daal bon dafa naturel ba pare xam nga ak ni muy tontoo xam nga genre dafa kii dafa neex daal comme benn instant bi naan siir nu ma ëmb sa doom di téye sa saak xam nga genre wax yooyu. tey boo amoon yow lay wax Nabou lan lay doon. waaw li ma koy wax mooy que ni bon mu gën a gëm boppam rek xam ni jigéen la jigéen nekk ci aar du doon lu yomb puisque da ngay am lu lay xoolee nit ñi dañuy foog ni dangay ngay fookat nga wala dara xam nga. jigéen la daal dama bëgg rek mu gën a gëm boppam nekk référence si milieu daal mu nekk ci référence daal maanaam mu nekk ci tey tey benn se comme ni mu nekkee ci musique bi moom mu nekk ci daal benn référence boo xamante ni xam nga ku koy xool da koy xool ci lu ku koy gis du moins da koy gis ci lu rafet gis mu nekk référence daal. gëm naa ne Nabou dina léegi jaajëfal. waaw waaw waaw maa leen delloo jaajëfal bu baax waaw. waaw nekkal ci ñaar ok xewal. Euh, salaamaaleykum sëñ bi. wooyee di leen. tur bi naka la. man Saer non rek xam nga non gars yi nag bon nañ ci yow Suisse yow di nga seetaan série sénégalaise yi. waaw waaw damay seetaan ay série quoi mooy mais du yëpp quoi wiri, yëpp. mais yan Wiri wiri sama rek ak wiri wiri, wiiri Pod et Marichou dama koy seetaan mais bëriwul daal yenn saa xam ma seetaan ko yenn saa dama koy seetaan mais wiiri wiiri moom dama ko taal rek quoi sama mooy sama émission wiiri wiiri jàpp nga ne mi yeete daal. waaw man gëm naa ne sax moo gën a yeete parce que yeneen séries yi comme ay Pod ay Marichou yooyu def yooyu yéen tam yenn saa xam rek du loo xamante ni day jàngal xale yi lu baax quoi mais bu fekkee wiiri wiiri moom moom dañ koy teg si yoon quoi lépp naa yees. tey wiiri wiiri yow kan moo ci sa acteur préféré. sama acteur préféré waaw Sanex la quoi man ba ma ko yàgg a bëgg ba mu ba théâtre Thiès ba léegi ba mu ñëwee Dakar du théâtre sama acteur la quoi. tey boo amoon lay wax lan lay doon. non Sanex moom amul lu ma koy def li muy def lépp naa yees amul lu ma koy reproché li muy def lépp naa yees kon lolu na la quoi ñu leen di wax rek ñu gën améliorer affaire yi muy gëna neex lolu rek la leen di wax quoi. jaajeufal lañ la si. Eh, nekkal ci jàmm. Eh, waaw faré fa jaajeuf assalamu alaykum señ bi nuy na la. waaw fay na la bu baax a bi naka la. jibi jibi sen ñu ngi sen série sénégalaise. série sénégalaise bon ay quelque rek dé comme ban. ah wiiri wiiri de dama koy seetaan des fois nak des fois mais duma yaqal yàqal temps nag quoi. yow wiiri wiiri lan nga ban jangat nga ñu ci mëna amal ci wiiri wiiri. ah wiiri wiiri ah, ah comme xam amour bi entre Jojo ak kii rek loolu moom marqué ci waaw Soumboulou waaw. tey yow boo amoon looy wax Jojo ak Soumboulou lan lay doon. ah Jojo ak Soumboulou ah, ah ñu gën a rek comme xam ñaar ñu bëggante chaque jour ñu am ay problème pour rek man gis ah. ci biir euh, Wiri Wiri ban moo ñan ñoo ci sa acteur préféré. Wiri Wiri ah non Soumboulou Soumboulou moom waaw daf ma kii daal. lan moo tax Soumboulou. waaw ah, Soumboulou dafa xam dafa joŋee te et yéen daal lan nga gis yéen daal xoolal dara ci sumbul daal lu dul jonge sumbul daal moo lan la. et puis tamit dafa bëgg daal dafa bëgg daal waaw waaw. kon daal xale jigéen ñi war nañoo roy ci sumbul bu baax. trop sax trop trop waaw xale jigéen ñi war nañoo roy ci sumbul de waaw. kon jaajëfal nañ la ji. waaw merci. di la ñaanal kii yaay ñëw jàmm ak. waaw amiin waaw.